salaamaaleykum maa ngi leen di siyaar yéen ñëpp kull kull képp koo xam ne nii sénégalais nga nekk fii ci Espagne yow yaa tax ma def yow yaa tax ma def vidéo bi li fi xew fan yi ñu ne woon Espagne day maye kayit Espagne dafa soxla entre soixante quinze mille et quatre vingt mille liggéeykat ci quatre vingt mille liggéeykat yooyu noonu ñu soxla ñu ngi leen soxla ci tool yi sénégalais yu bëri xam nañ lan mooy tool yi. ndax ñu ci bëri jaar nañu ci foofu gouvernement bi nee na mu ngi ko légaliser mardi bi passé mu ni dañoo soxla ay liggéeykat urgent ci lu mu gën a gaaw pour ñu dem liggéey ci tooli Espagne Espagne yi mais ñan ñoo mën a dem liggéey ci tool yooyu noonu muy ñi nga xam ne nii ñu ngi paaro bu fekkente ne yow yaa ngi paaro liggéey bi ngay dem liggéey ci tool yi yàqalu la dara ci paaro boobu noonu ngay fayeku bu dee yaa ngi paaro yi am mille euros par weer boo demee liggéey ca tool ya tool ya war a fay 1000 euros donc weer ba danga nga am mille euro bi ci topp moom mooy da nga doon liggéey fi nga doon liggéey feebar bii ñuy wax Covid 19 muy coronavirus moom moo tax ñu arrêté sa liggéey na la demal nga toog sa kër ba mu paase yóbbu nañ la li ñuy wax RT. erte boobu ñu la yóbbu du tere di nga fayeeku yaa ngi fayeeku mais boo demee liggéey ci tool yi encore yaa ngi am beneen salaire mu nga boole ñaar yooyu noonu kan moo ci topp mooy ki mujj chaque jour muy ñun immigré yi immigré yi nag gars yi ñëpp dañu bi affaire bi jugee ñëpp ne non dañuy maye kayit dañuy maye kayit mayewuñu kayit. immigré bi nga xam ni am na permiso de trabajo bu fekkente ni kayitam dafay waaj a jeex fii ak le 30 juin bu dee ci diggante boobu day jeex dinañ la ko yokkal pour nga mën a dem liggéeyi foofu ki ci topp mooy jeune bi nga xam ne nii am na entre dix-huit ans ak vingt et ans kooku bu ci kaw moom mu am permiso de residencia boo demee ñu defaral la contrat changer la këyit boobu noonu nga am permiso de residencia y de trabajo donc du dañuy jël këyit maye et pour mu gën a leer ki nga xam ni say trois ans sax mat na nga jotoon a dugal say kayit ba sa kayit mu ngi ci trami eh, mu ngi ci tramitation administrative ba ñooñu noonu sax bokkuñu ci ki nga xam ne dafa ñëwoon asilo te amu fi lu mat six mois kooku it bokku ci. dinaa leen leeral na la sax ci liggéey boobu noonu muy ci tool yi pour nga mën cee dem liggéey day fekk nga dëkk ca dëkk boobu boo dëkkul ci dëkk boobu sax mënoo caa dem. bis bu ñu demee nag ñoom ba quatre-vingt mille personnes yi ñu soxla pour liggéey foofu noonu amuñu ko peut bu boobaa dinañu ut yeneeni yeneen yeneen solution foofu nag laa bëgg a am lu ma insisté ci fan la dañuy wax naan bay sa weewi tànk nit booy am looy def da koy jiite ci sa bopp sama biir kër nag laay fëgg ba pare fëgg sama biir kër moom mooy moodu moodu yi man yéen laay ñaan ngir laay war a suul yi bu leen dégg ni yaa ngi bu ne yaa ngi paaro boo demee liggéey ci tool yi di nga am double salaire rek ngeen daw dem lii xeex la boo xam ne nii xeexu xel la ak xalaat dañoo soxla quatre-vingt mille personnes quatre-vingt mille du lu yomb donc du coup ñun sama genre gi nga xam ni nii ñu ngi doon liggéey ñu yóbbu ñu RT wala sama genre gi nga xam ne ñu ngi paaro wala sama genre gi nga xam ne nii amoon ñu problème mu fayeeku seen salaire gars yi am neex na loolu mais parfois nga sacrifier sa bopp ngir sa mbokk suñu mbokk yi nga xam ne def nañ fi trois ans war a am këyit gars yi bu ñu najee lii téye suñu bopp kenn nangu kenn du dem liggéey ci tool yooyu noonu par force par la force dinañ mujjee xool ñi nga xam ne ni toll nañ ci am këyit ñu may leen këyit te boobaa daf koy jar ndax fii ak le 30 juin soriwul boo fi fayeeku benn weer nga fi fayeeku wala ñaari weer looy am deux mille wala deux mille cinq cent euros est-ce que jar na ko nañ leen takk seen biir dañoo war a takk seen biir ku mel ni man encore une fois may répéter ku mel ni man bañ leen ba tëdd ci suuf bu leen dem liggéey toog leen ngeen fayeeku seen paaro toog seen kër seen watu njaboot yi bu ñu demee ba sës xam ne seen la ñu war a jël ca tool ya muy mansaana la muy peera wala lu mu ci mënta doon bu ñu demee ba gis ni lii buñ ko fi bàyyi mu yàqu dinañ dem ni ni nañ leen xool immigré yi nga xam ne nii war nañoo mën a am kayit ñu defaral leen kayit te bu boobaa dina bëri muudu yoo xam ne nii dinañu war am kayit wala immigré tout tout simplement. gars yi donc combat la boo xam ne nii na ku nekk takk biiram na ku nekk takk yéenam na ku nekk takk bëgg-bëggam ndax aussi nga nekk paaro di am 1000 euros wala 1200 euros ñu ne la boo demee liggéeyi actuellement ca tool ya di nga fa amaat beneen 1000 euros kon muy 2000 mille wala 2200 euros sa xol dana ca neex mais mën nga faa jële benn risque muy jële fa feebar bi jële fa coono te booy gañe xaalis bi da koy gañe ci benn mois wala benn deux mois takk leen seen biir bu kenn dem bu ko defee ñu may suñu mbokk yi nga xam ne nii amuñu këyit ñu may leen këyit ñu defaral leen këyit ab dëkk kenn dafa warta nekk ñu lay xoole bëtu amoo këyit mais nag il faut ñu yeewu gaa yi yeewu bi moom mooy européens yi jàppe woon ñu muy dara mosuñu jàppe ñuy dara européen bi li muy def saa su ne mooy heure bu soxlaa immigré yi daw wuti immigré yi si vous vous bu ngeen fàttali ko xamatuma ba xam 2008 la wala côté yooyu noonu biñ fiy maye kayit yi dañ la daan wax diw dañuy maye kayit amoo ko bëgg ñu ñu fi daan woo ñu nekkoon ba Italie dëkk bu nekk nit jóge fa ñëw pour ñu mayoon leen kayit ndax lan ñu dem liggéey ci construction ndax boobu dañ ko soxla woon biñ ñu soxlaa dañ wëri bi ñu demee ba nga xam ne nag crise bi récupéré wu nañ tubaab yi ñu ngi dem di liggéey liggéey boobu dañ ñoo xalab on est devenu invisible tey nag dañoo demaat ba dañoo soxla mais soxlaaguñ ñu directement ndax waxaguñ ñu ne ñu dañ leen a soxla ndax ki soxla nit ki danga koy fekk si ñëw teg ko ci ay conditions yu leer mais conditions yi ñu tëral du ay conditions wu gat donc dama leen ñaan ngir laay war a suul yi dama leen ñaan ngir laay war a suul yi ci li ñu bokk muy Afrique bi ñu bokk muy Sénégal bi ñu bokk. ku ci nekk ci position bi yaa ngi fayeeku paaro wala même bu dee subsidio bi nga xam ne 500 euros la xaw ma 600 euros bu mu ci mënti doon gëmal yàlla gëmal yàlla te xam ne lii leen mu jàll mais suñu mbokk yi dinañ ci am kayit loolu laay ñaan bépp sénégalais tubaab yi teguñu ñu fenn te duñ ñu teg fenn tool yi lu fa baax immigré yi ñoo ko baaxal géej gi jën bu fi génn immigré yi ñoo ko génne. construction yi kër gu immeuble bu fi jekk immigré yi ñoo ko jekkal gars yi nañ leen yeewu léeg nag nga xañ sa bopp nañ leen jàppalante bu kenn dem liggéey loolu laa amoon lu may wax nag jërë ngeen jëf ñi amul këyit yàlla na yàlla yombalal leen kayit yooyu noonu ci darajay laa wa tabaaraka di leen jaajëfal bu baax